ga mu rax ci dolli ne dafa defloo directeur bi nga xam ne moom mooy société ISA xawma ISA hmm. directeur société commerciale du groupe ISA laa ko mën a lire parce que ila la 2SA nee na am na déclaration sur l'honneur boo xam ne def na ko buy wane ne kat na ne moo war a réaliser mbir yi comme amaguñu terrain ba léegi dañuy sécuriser lu jëm ci wàllum contrat bi sëñ bi jàlloo moo wax loolu moom mooy daaju ministère ba waaye nag nekkatu fa pour préciser nu hmm. sortant léegi nag pour ne waa li mu wax lépp tey firndeel ne ne moom jël na xaalis fay soixante treize millions jébbal na ko gaañal nangu na ne joxe na xaalis bien sûr ah ah oui ah déclaration sur l'honneur bu amee. Mhm. yow nga ne da ngaa fay. parce que centre bi kat unité de euh, euh, gravimétrie bi il faut mu am. Mhm. bu amul dangeen am ay contraintes budgétaires mun ngeen ñàkk contrat baag ñoom seen loolu la indi ay lay. mu ne lool yépp met mhm. boo ko xoolee ba xool nee na waaji daal faaw ñu ubbi information judiciaire contre moom. parce que nag yëfu yaa ma neex ak maa moom moo fa am moo gën a xam ne ne bor ci signature contrat ba mais ba ngay matale yëf bu lépp matee mm. ba xool gis na ne liñ la santoon réaliser na ko su boobaa la boor ba di dugg Alaaji Simon Pierre Faye vous avez la parole <laughs> maa war a def plaidoyer wala man maa war def accusation <laughs> por por curé. c'est le ministère public. man man peut-être question bi may bi may njëkkal a laaj. unité boobu gravimétrie xaw ma. Mhm. ban lien la am ak xeexu mbasub Covid 19. loolu peut-être xëy na bu ñu sëggee ci rapport bi xëy na dinañ ko gis mais est-ce que c'était pertinent. Hmm. tricycle yi est-ce que c'était pertinent anañu. Hmm. je peux comprendre que nous étions peut-être dans une phase de résilience dimbali askan wi peut-être ñuy mën a am koom parce que la plupart du temps c'était ça au-delà ou a côté des aspects peut-être médicaux askan waa ngi woon fii soxla woon kom nit ñi dematuñu dikkatuñu on a besoin de relancer l'économie nationale peut ci cadre boobu mais comme li nga posé sànq ana tricycle ak mine xëy na lien boobu tam waxu ñu ko. est-ce que tricycle yooyu ña nga fa ba léegi am déet. waaw est-ce qu'on les a utilisés ou pas. nee na kay kuur nee na leen nañ ko récupérer ji. ca eh. permanence ca yi ñu nekk. kon ña nga fa ba léegi ak bu Tamba delloo kon ña nga fa ba léegi. ah ça veut dire ah, que ña ñu yaakaaroon ne ñoom ñoo ko war a jot jotuñu ko. loolu peut-être déjà erreur la. wala un point boo xam ne mën nañ ci duut baaraam. Mhm. ça c'est clair. Mhm. kon loolu yëpp ci resté chez vous. mi ngi noonu mi ah! léegi nag lu jëm ci soixante ñaata millions 73 millions. ak lu teg as lëf waaw. mais Fofana. Mhm. ñoom bu ñu bindee gouverneur naan wutal leen ñu suuf. Mhm. mais xanaa yoo kay balaa ngaa jëm ci financer projet. Ah, nga xam fi nga koy def. dëgg dëgg dëgg kon ça veut dire que dañoo def à l'aveuglette. ak yaa ma neex. virtuellement on cette unité on l'a financée mais sampuwul fenn tabaxuñ ko fenn parce que amuñu suuf gouverneur moo taar rek yooyu yëpp pour man ay lay la. Ah, donc ban société moo waroon tabax euh, unité boobu. mooy xaw ma ISRA bi nga wax noonu. Hmm. groupe bi existé na depuis bien longtemps. oui bien sûr. c'est man sax li ma xam akas néew ci ci ci ci gestion. surtout dans des domaines yoo xam ne ça relève de l'État. Hmm. il faut mu am réception. ah hmm. ñu réception nga dem xool lii ma la santoon tabaxkat mi ngi nii. la ca waroon yem dem yëpp aux normes la ca waroon dem yëpp yëpp a ngi fi ñu réceptionné la la ca war a aju yëpp topp ci du noonu ah loolu da laa yaakaar ah. kon nag am na faille quelque part et c'est bien que le rapport puisse le souligner léegi nag lan moo ci nar a topp est-ce que xaalis boobu dafay dellu si waat wala projet bi dinañ ko tabax ci diggante bi en tout cas yoon nee nañ ubbi ab enquête information judiciaire contre suñu waa ji bi Diallo Diallo bu ko defee ba altineeg jàmm incha allah maa fi jaaroon. ndeysaan ndeysaan. merci beaucoup Mamadou Fofana. Oubsachi bien après on fait place à la revue des titres n'est-ce pas. Mhm. waaw waaw di ziar turandoo bi mu ne gën a fës nag ci sama turandoo bi xanaa Mame man ni damay woo téléphone ma mbay ñaa ma bàyyi ko mu wax ba pare damaa léegi damaa tàyyi si rectifié ñëpp ñaa lañ may sant ne léegi mu garaawul nañu wax rek ma mbay ñaa garaawul amul benn problème ziar na ñëpp nag ñi nga xam ne ñoo ñuy teewlu ci gargot yi sama mbokki mool yi ci biir géej gi lañ ñuy teewlu sa jour dañ may defar témoignage nag dañu wax ne waaw sama mbokk moom ci biir géej ñi ci gargot mooy ñi nekk fii rek. Mm. Euh, mbëkk rido yi mbëkk rido yi. Ah. Ah, forox caay yi forox caay waaw. bante ya lu la lu baax la. bante ya bante ya mayga yi. waaw mayga transport yi. tailleur yi. fonde yi nga xam ne ñu ngi libre ci kër gi. waaw ah fonde bu am jinjeer rax dama ko fiy gis. jaaykatu tapalapa jaaykatu fagadaga. fonde deux <laughs> point si loo xoole yéen ay agression la de. ah yéen baax na fi de. non <laughs> baax Fondé 2.0 yi rek mu may agressé si ay bët. Ah, ba da nga ciy jëfandikoo. wuy <laughs> ah, eh, ma. boole si les de Tadjari. les de Tadjari borom gàllaxi. Fondé eh, baax na de boole si Omar Touré. mi ñuy indil tous les matins. borom baguette dëgg borom baguette d'or. na nag àjjuma bu ne dañuy andi ndékki. a ah bon waaw kon yëgoo lool. ah bon da a plateau moo tax. ah alors waa fondation El Hadj Bassirou Diagne Mariam Diop. Euh, ñoom nag euh, dañuy faral di dem ci armée yi di ko nettoyer. Mhm. alors ñu ngi koy faral di def nag. alors samedi ëllëg ak dimanche cinq bii mooy ñetteel bi yoon ñu koy amal sa cimetière yu Soumbédioune. donc ñi dëkk Medina ak li ko wër nañ dem jàpp ci. Bassirou Diagne grand Serigne. Euh, waaw xamu nuñ ko tuddee sa cimetière su Mbédioune ya nga xam ne mooy armée yi nek foofu bétuwaar bétuwaar bétuwaar nga xam bari ñu nga ay borom xam yu bari ñu nga fa donc dem di ko nettoyer da ciy baax donc ñu ñuy wax ne rek ci mën a dem jàpp ci na ci dem euh, jàpp en attendant may nuyu ka nga xam ne tey nag moo ma ñawal mm-hmm. justo création sama bokkum tëngeej naxu la waaw justo création wala baax yaay non bii du baax yaay justo création la Zizo création Pape Moussa. waaw sama rakk ji ah, du mari tey mari sama rakk bi tey eh, sam beneen rakk la ana tribune yéen a kaay. ayca ayca yëg leen ci kaw tribune bi. Hmm. waxtu wi jotee faw ñëpp yëg ci kaw tribune bi. jàkkaarloo actualité bi actualité bi nag démb. mi ngi woon ci tribunal bu Dakar. procès Mame Mbaye Niang Ousmane euh, euh, Sonko. ñaar ñii ñoo waroon jàkkaarloo ngir layoo waaye nag yi tribune yéen kaay nee procès bii de. risque nga sax de si Ousmane Sonko. Hmm? risque mi ngi ci soo maytuwul yetu délit de faux dana ko dal yetu délit de faux dana dal ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko procès bi nag dañu ko daxaat renvoyé nañu ko ba le 16 bi nga xam ne moom lañu ñu dëgmal waaye nag bii dafa demoon fo bali am na ci droit demoon na fu bali. waaw donc bii di ñëw la 16. da doon tël da doon tël. tël waaw fu bali doxantu woote petit mhm. mais bii la 16 nee nañ ko. wootu lan woote petit camp. football football koy. ah mais le siège bi nee nañ ko football bi du nekk sa koñ ba football bi sa tribunal ba donc Sonko obligé de se présenter yéen bi loolu la wax ba tey nag nee nañu amoon a yenn accrochage yi ndaw foofee diggante waa Pastef ak takk der yi yéen kaay bi dem ba sa cité kër góor gi maître Ciré Clédor ba euh, dikk na ci risque boobee nga xam ne nee ñu euh, am na ci bile procès Euh, te muy yoot ki nga xam ne moom mooy euh, njiital Pastef di euh, Ousmane Sonko jëm nag benn polémique bu nga xam ne ñu ngi doon tudd coow na ci lool nag coow lu nga xam ne comme procès bi dañu ko différé coow loolu tam président Macky daf ko différé woon ndax jox ko woon fulla mu di terre bi ndax ñoo ko moom wala moomuñu ko dafa minimiser soofantal fënatal mais nag dafa jot ñu ñuy woon ay kayit yu firndal li eh, kàddu yi nga xamante moom moom la joxe hmm. askan wi Ah, maanaam contrat yi ñuy signé. non mais si le T le TER appartient au Sénégal il y a des papiers yuy firndeel ni. ñoo ko moom. waaw alors la mhm. parole ne suffit plus. maanaam nay leer nay leer nay leer bëggul lëndëm na am waaw. nay leer. c'est que c'est peut-être les contrats bon ya y a des contrats yoo xam ne tu ne les verras pas sur la place publique. donc mhm. ah, ah, le problème qui se pose mooy. lu tax depuis quelques années sunu kilifa yi bu ñu waxee kenn du leen jox cër. wala boog kenn du gëm li ñuy wax. on met toujours en doute la parole des autorités. te loolu questionnement la. aussi hmm. bien de la part de nos autorités qui ont peut-être une part de responsabilité ak peut-être ñiy wax. parce que ay autorités yoo xam ne saa bu ñu waxee wax waxee da ciy faral di am da ngay dem ba doo respecter seen kàddu. loo tax ma ne tam am nañ ci responsabilité. donc dafa am loo xamante crise de l'autorité. crise de l'autorité loolu nga bëgg waxee. crédibilité seen i seen i wax. Sénégal parce que saa bu ñu waxee dara ba ñëpp ne foofu la. Mhm. nga gis ñu ne maa waxoon waxeet am na benn bu dul certains ñëpp nag certains de ñi nga xam ne nee nañu terre bi ñu ko ñoom ñoo fi doon wax ne Sénégal dafa sànni mille milliards ci terre bi. mais mmh. non mais xam nga lan mooy sama problème. yow nga sànni sa xaalis après nga ñëw ñu ne la moom. xam nga lan mooy sama problème. Bougane Gueye Dany wax na ko. ça n'a pas fait de bruit. ñaata question la defoon sax si table bi. lu bëri moom kay question rek. tuy tuy tuy rek. seize questions yu mu laajoon tuy rek. jëm ci terre bi moom de mbool de murid rek. waaw gëm sa mbool waaw moom day gëm mbool de murid rek. <laughs> léegi y avait aucun bruit mais il fallait kii ñum tudd groupe bi nam tudd hmm? euh, euh, non non non kii journal bi journal ah, bi non le Figaro ah ñu def enquête avant première fois BBC ak euh, boy bi Alioune Sall hmm. avant ça Kadar enchaîné ñu ne ñu fa mm-hmm. avec ñoom Mansour bi ñu demee mm-hmm. commissariat mm-hmm. mais c'est toujours les les parutions hein, qui Et... secoue les choses. lu tax loolu. qui installe le débat ici. waaw qui installe le débat ou qui l'oriente. lu tax loolu. seen droit de regard boobu la ñu war a dindi ci réew mi. waaw ñu réew. ñu doxal gaa ñu ne ku la fees loo. moo la yàpp loo. ah loolu la ñu wax mais parce que su fekkee ni lii leer na. le mhm. Figaro devait euh, devrait euh, l'état du Sénégal devrait poursuivre le Figaro. Mhm. certainement bon, bon, kilifa mu ne diffamation diffamation comme ni ñu koy toppee par exemple Ousmane <laughs> Sonko wala di ko toppee keneen non non non plus gi mu ne ko non ay waxu la graw ah mais ko waxu picc moom na na ko wa parce que ñun bu fi waxee lu lu lu ñu jàpp ni ñoom ci ñoom teguwul ñu citation directe ñu koy dañ ko citation directe le na nañu def comme Mame Mbaye Niang rek waaw bu jeex ayca ba tey si yéen kaay groupe des médias Mamad Mamad Ndiaye euh, Sen TV l'officiel ma lay nuyu bu baax yéen bi dafa ñëw ci njombe lu lu doy waar imam bi nga xam ne dañ ko doon euh, seet altine bu demoon seeti euh, rakkam wala magam nee nañ tailleur la euh, marché bu Grand Yoff gisatuñ ko mujj nañu ko gis waaye ab néewam la ñu gis zone de captage bassin ba nga xam ne moom moo fa nekk yéen kaay bi sampaaw laaj ndax anam nga xam ne moom la ñu gisee néew bi dañu njort ni danu ko faat dañu njort ni dañu ko faat yéen kaay bi sampaaw laaj def point d'interrogation ani kan moo faat ki nga xam ne moo di imam Tall yéen bi daal dina ci euh, dikk def na si ab euh, jàngat Mao Sémou Diouf euh, moom lañu def ngir mu jiite li nga xam ne mooy cour de justice bu union économique et monétaire ouest africaine mu nekk dam ba tey nag ci réewum Sénégal loolu nag ba tey sunu ndam la ñu ni neen ayte ñu ñëw ba tey ci imam bi nga xam ne moom la ñu faat ci anam googee ndax bu fekkee dañu ko faat yéen bi dikk na ci nee na nag dañu ko fekk mu faatu ci biir bassin ba nga xam ne moo nekk ca zone de captage def nañu si nag maanaam takkadeer yi jamono ji ñi ngi ci lanket bi hmm. ñi ngi ci piste nag fu mu nekk nii nee na ñu gannaaw ba ñu gisee néew bi seen lo dañuy localiser li nga xam ne moom mooy téléphone eh, imam bi am na lu nga xam ne xew na ci ab auberge ak ñetti ci ay individu yu nga xam ne ñoom la ñu fekk sa biir lii moo lay wan ne kon takkadeer yi ña nga ca lanket bi hmm. xuus nañu si ba ci biir kon daanaka yàggatul dara non mam Mbaye ñu ñu xam ne ñii ñoo def njombe. Mame Mbaye police su Sénégal. waaw gendarme Sénégal. te te te te d'ailleurs même benn année c'était la meilleure police. waaw ah, waaw ah. ko jël nañu non si la meilleure police. non ñoom ñoom taf taf xola géré dossier bi teg ko Fatou Mbacké ni ci am yu baari. taf taf la ñuy def du mat une semaine ñu ne la diw moo def jàpp nañ ñuy def. parfois complice yi sax yow yow da nga naan ndekete yow da nga naan est-ce que. kii njortoon nañu ne moom la xam nga souvent boo defee crime ñu ci ëpp ñoom booy jooy ñoo lay gën a jooyle mhm. sa benn proche lay ne sa entourage ñooy ranger siège yi ñooy wàcc bâche yi dëj ba ñooy def lépp jooyle la ba nga jën rek te yow ñoo def la ñuy def ne xewu toog police xam lépp bàyyi la ci biir mhm. xam nga donc sunu police bi nañu waxante dëgg rek liggéey bu am solo la ñuy def macha allah ñu xarañ yéen kaay bi ñëw na également ci coow li Macky nee na nag na coow li dakk na coow li dakk ndax teer bi ñun ñooy borom terre bi titre foncier Sénégal donc coow li mën naa dakk nee na ñii di wax wallaay mi ay mag yu nga xam ne nii boo jàkkaarloo bëccëgu ndaar kàmb naaj wii ñu ne la lii jant la nga ne du benn jant weer la mënoo ci dara da nga koy bàyyi mi wax rek nee na moom Sénégal da ko yónni yàkkamti ko ci loolu la nekk tarul ay wax diffamation sur le scandale du vingt neuf euh, des vingt neuf milliards du Prodac moom Mame Mbaye Niang moom bi juróom-ñetti waxtu jotee la dem te tribunal di xaar li nga xam ne moom mooy procès bi. waa teel a xëy ngir jàkkaarloo ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko Ousmane Sonko di ka wan ne nag man aw ma sa jot. aw ma benn temps bu may yàq ak yow am temps bu ma naree yàq ak yow temps boobu ma dem footballee ko ca mbedd ma moo ma gën a. waaye wii la woote. mais nag gaa ñi nee nañ ko. wiiri wiiri jaari football bi bii di ñëw. <laughs> du nekk sa koñ ba de. football bi sa tribunal ba la. maa nag nee Euh, football bi wax fa dëgg neex yàlla c'est lui qui a demandé un renvoi nee moom huit heures fekk na ko fa taxaw. sënk waxoon nay avocat am ne leen bëgguma benn renvoi nañu ko tëgg tey tey tey ñu bëri ko tey tey tey tey ku am ndam ñu xam ne. yaa waaw tey tey tey. na nag manu ci dara waajee demandé ñu renvoyer dossier bi kon moom manu ci dara waaye rendez-vous bi dañ dëpp gi la 16 la yéen kaay moom moo ciy dikk ba tey di euh, euh, tribune ñu jàll ba tey ci li nga xam ne moom mooy procès bi procès bi nga xam ne moo doxoon si diggante. Mame Mbaye euh, Niang ak euh, Ousmane euh, Sonko yéen kaay bi daal dina ci dikkan ah. ba tey nag ñu ñëwaat ci li nga xam ne moom mooy l' évidence l' évidence dafa ñëw ci polémique bi nga xam ne moy TER bi Abdou Ndende Sall brise la plume à Figaro kon nag Figaro la mu wax moom ci boppam teggi na ko ba mu ba mu set lek exclusif dafa ñëw ci coowal koppar bi nga xam ne moo dox si diggante Zaki saw mi Zaki lu laaxi Sow ak nag Abdoulaye Sylla bu Ecotran Ah, ñoom nag nee nañ wax fa dëgg nañ yàlla waa ji daanaka de delluwaat na rëbës ba noppi xam nga digtee woon na ko mhm. kon nag daanaka kon wutali na rëbës ndax moom li mu waxoon yëpp ne dafay fay xaalisu waa ji gannaaw ba ñu jàppee ne kon daf ko doon jéem a escroquer ci cinq milliards ah, moom mii nag dana woon dana pare na pour fay dina fay xaalis bi waaye nag nee nañ fu mu nekk nii lan la andi benn këyit di ne dafa feebar <laughs> waa ji waaw dafa andi benn euh, euh, euh, certificat médical bi wane na moom dafa feebar waa léegi boo feebaree ax ah, entre góor beex uh-huh. ak feebar bi lu ñu jote waaw bu fekkee xaalis baa nga fa en tout cas yéen bi nee na soo moytuwul waa ji bu fekkee dafa feebar dañu fa jijee sa rëbës ndax looloo koy yoot fu mu nekk nii bandiwul lu leer yéen kaay bi foofu la sa dikk Macky Sall na nag wax fa dëgg neex yàlla autoflagellation nationaliste sur la paternité du terre Macky saal nag moom nee na teer bi sunu teer dañ bàyyi coow li affaire Sonko Mame Mbaye Niang yéen kaay bi daal dina ci euh, dikk cinquante neuf jot na ana euh, euh, Oja ci ginnaaw Oumar Diakité Oja lu mu xewle tey <laughs> Oja Oja tey Mame Mbaye la andi ministre bi ñu dénk wàllum tourisme <laughs> ak Ousmane Sonko mu nekk ci benn salon Salade Dame moom nag nee na ko fa dëgg ne yàlla ubbi naa buntu bi visite baa ngi Salade Dame mooy lan waaw xar yi nekk waaw xanaa moom mooy kii bi nu euh, mu tudd. foire bi nu mu tudd. am nu ko tudd fiara la wala du moom. Adam la tudd Adam la foire bi instant bi li fa xew. pour man fiara bi la sax. Hmm. alors tribunal bi nag fu mu nekk nee na ko bindal la bunt bi moom dafa bëgg mu dem visiter rëbës. waa na ko nag man sa rëbës safuma man xar yeex. jur yeex dafa demoon dafa demoon démb moo tax. waaw moo tax it kon Sonko fa la dem. nee na ko man foofoo ma gënal. waaye yow toog may woo a ah, aw benn jot damay football yi. waaye damay dem petit camp. waaye bëgg bëri bëgg bëri. dañuy waaw rendez-vous la seize nee nañu. waaw waaw loolu de la woot. merci merci ci revue des hmm. titres yi Mame Mbaye Ndiaye Hadj Mansour Diop bu dikkee dañuy ànd ci li gën a fës ci ah, nga xam ne mu am.